quoi nuyu naa la. Baye Jili maa ngi lay fay. maa ngi sant Serigne Saliou bu baax. maa gis beneen Sa Touba lan la. waa sant Serigne Saliou rek. du dara ni daan ñëwee rek lañ ñëwee. di santaat yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla. yàlla may ñu ndam lu sedd guy incha allah te rafet na allah damay wàcc sama rakk mooy bëre. incha allah bu soobee yàlla. boo wàccee loo fay. ah damay dem ñaax ko rek. ñaanalaat ko yàlla comme ni ko doon defee rek yàlla mayaat ko ndam rek ñu ñibbi. incha allah. dafa mel ni saa saa Touba dama gis tey sécurité bu bu garaaw topp ko sécurité bi lan la. bu doon sama sago kese man ku ne xam ne ma ñi ma xam dëgg xam nañ ne man awma lu may sóor sama àdduna ndax yàlla rek laa laa ragal barke alxuraan waaye boo amee kilifa ñu ne la booy dem defal lii defal lii lañ la sant rek ngay def. bëri na ñoo xam ne buñ sañoon sax du ma ñëw ci làmb ji mais ñun làmb la ñuy dund du dara mooy tax ñu ñëw ci làmb dañuy ñëw comme dañoo war a ñëw ci làmb di ñëw rawatina nag suñu doom du bëre waa parcelle di bëre kon dañuy ñëw ci bis bi incha allahu rabi. su diggante Ama Baldé coow lu bari na ñi ci war a wax wax nañ ci. Sa Touba dee na jéggal na ko mais dafa mel ni wax ji mu ngi judd ba léegi. loolu du ma wax li ma leen waxoon waxaat naa leen ko ama sama mbokku taalibe la ñoo bokk Serigne Touba baal naa ko àq ci xol bu sedd guy nañ close débat boobu rek ñu ne ci leneen quoi. combat bi noo gisee Petit Lo. waaw suñu xel dal na bu baax ci moom ndax li mu war a def lépp def na ko ñu ngi ñaan yàlla bi nga xam ne dara tawu ko te lu waaye def mu sotti yàlla la neex yàlla na ko yàlla mayaat ndam lu sedd guy barki Serigne Saliou sama jàmbaar gi. da na Petit Lo day daan far force. mu ne. da ngaa na Petit Lo day daan far force. far force jaam du ko wax yàlla suñu borom bi moo ñu sàkk ñun ay jaam lañ dañuy ñaan yàlla mu ñuy may amuñu droit di wax far yàlla na ma yàlla musal sax ci baat boobu duma ko wax billaahi wallaahi par force du ko wax ndax jullit laa te lu waay def mu sotti rek yàlla la neex yàlla moo la mën a war lu weex tàll ba nga gis ko mu def ko mu ñuul kuk loolu programme yàlla la xañ na coow li muy bëri bëri fii mbëri fii ñoo yëpp ku ne indaale nga sëriñ mais lan moo tax Sa Touba rek Sa Touba dafa mel ni ñu bari day naan saa Touba est-ce wut buzz ci làmb ji mbër mu ne Sa ko ànd xam nga buzz buzz dañuy jaawale wut buzz ak itam gëm na yàlla moo la may est-ce que ma dégg ndax booy wut buzz te amoo ci loo sukkandiku yaakaar naa it boo ñëwoon fii man sama empreinte dama ko marqué ci lamb bu dee lamb ji quatre-vingt-dix litres laa fi indi quatre-vingts yëpp yàlla may na leen ndam ñaanal ñëpp mu nangu yàlla rek moo ko mën yàlla suñu borom bi rek moo mun a ñaanal ñëpp mu nangu amul keneen. waaw mais bu ñu demee ba ay ñu yor mbër ku mel ni Landiang def sorti ne Sa Touba musuñoo ñaanal ci làmb loolu tamit da mel ni Sa Touba fi mu toll nii yaa ngi waaj. loolu bëgguma ci wana bëgguma ci wax ndax ay kilifa ne nañ ma bu ci wax mais après bu waxam jotee dinañ ci wax incha allah li leer ma leer mooy bëri na loo xam ne su ma ko jënd woon ci sama téléphone bi ay preuve kon. dana doy waar torop barke sëñ Saliou